alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi maa ngi ndokkeel mboolem jullit ñi ci bés bu màgg bu barke bi di bésu korité yàlla ñu santoon wi woor nañ ko ba mat ñi feete mat gi mu mat daje ñun ñëpp sol suñu yére yu bees yére yu set tok di tuddu yàlla ngir magal bés bi ngir wan yàlla ne ko ñi ngi sante yàlla li ñu sante ñi ngi lay sante li ñu digaloon def nañ ko ba mat alhamdullilah rabbil alamin ñi ngi ndokel ummal islam yi yeb ñi ngi ndokel seydi wa mawlaay alxalifa cheikh mouhamadul maahi cheikh ibrahim Niass mi nga xam ne mooy umma dégg nañ léegi waxtaanam ni jotee ni mu wootee ñi nekk benn te loolu la yàlla digle ni mu wootee ne nañu dimbalante te loolu la yàlla digle ni mu wootee ne nañu liggéey te loolu la yàlla digle ni mu wootee ne nañu laayante biir te loolu la yàlla digle loolu mu yëkkati ci ay kàddu buñ ko jëfee gouvernement jëfee ko peuple bi jëfee ko Sénégal dana dox dox bu gaaw jëm ci kanam ñi ngi ndokkel seydi imam cheikh tijan ibn seydi ali sise ci bes bi ci khutba gi ci ñaan yi ci leral gi ci hadith yi nga xamantene ni mi ngi ko doon euh, jox nit ñi di weeru koor yi pour ñu xam seen farataay koor momi ñu ngi koy ndokkel ci lolu naka nonu tamit ñi ngi suwat di ndokkel khalifa bi ci tafsir bi nga mi ngi ko doon firi téere yàlla bi di ndokkeel mbooleem waa dëkk bi di ndokkeel mbooleem taalibe yi di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor suñu naafila suñu dundale ci yàlla suñu ñaan te may ñu ñu teewee ko at yu bëree bëree yu ànd ak yokkute ak wér di gërëm di sant mbooleem ñi nga xam ne dimbale nañ prix Cheikh Ibrahim international pour le récital du Saint Coran ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen di gërëm ñi nekk ci biir réew ak ñi nekk ci biti réew doomu adama léeg-léeg dafay nekk di lim di tudd ay tur waaye ay temps mu juum ci lim yooyu noonu wala mu fàtte keroog bi ngay ñëwee këru gan di may laaj bi ma ñëwee ba agsi Mauritanie dama fàtte benn sëriñ bu mag ci Mauritanie mën naa am xiif la mën naa am mar moo ma ko yóbbee muy Seydi Cheikhani radiallahu taala anhu nga xamne ne kenn mënu koo mom mom ken kenn mënu koo fàtte ndax fi mu bok kenn munu ko fàtte ndax ki mu doon kenn munu ko fàtte ndax relation ak cheikh ibrahim ñas radiallahu anhu ak ni ko cheikh ibrahim beugé won motax ci kaw lolu ñi ngi jéggelu famem yépp di ci jiital ki ci mag di cheikh ibn cheikh khani di len wax dal na len suñ lettre jéggelu dana ñëw ba aksi ci yeen dal pour ngeen xamné fàtte la waaye du tayeef ci ñàkk tudd googu ñu ñàkk leen tudd naka noonu tamit Cheikh Amin Soufi moom it euh, bi modérateur bi di lim ci tànt bi xawoon na fàtte turam waaye ñun luñ leen fàtte fàtte rek Cheikh Ibrahim fàttewu leen te loolu moo leen gënal ñi ngi gërëm mbooleem ñi liggéey ci jaayisa bi ci jury ak ci organisation di gërëm mbooleem ñi ko dimbale ci biir ak ci biti réew ba mu àgg fii nii mu àgg di ñaan yàlla mu may ñu ñu yàgg ko teewe ñaan yàlla may ñu kàttan ak xel ak xalaat ak dimbalante buñ ko yëkkatee ba mu àgg fi nga xam ne foofu la kilifa yi bëgg mu àgg yàlla am na loolu mën na ko yàlla ñu ko defal ñu ngi ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan ci ñëpp tamit ñu defal ñu ñaan di ñaan yàlla mu guddal fan yi wéral cër yi diisal poos yi ci alal feesal xel yi ci topp yàlla ak gëm ko def jàmm te tasaare jàmm jooju noonu di leen sant di leen gërëm yéen euh, euh, journalistes yi nga xamante ne nii euh, seen seen seen seen yitte ak seen bëgg-bëgg mooy képp koo xamante ne nii jullit nga rawatina nga aju Cheikh Ibrahim foo mën di nekk ci àddina rek nga dem ba mel ni yow ak ñun nga dem ba mel ni yow ak ñun ñun ñoo nekk fii nii ci Medina ndax lépp lu ngeen soxla rek lu ngeen sori sori ba Amérique ba Europe ba Australie ba Afrique ci cat yi gën a sori da ngay gis ne dangay ngay dund Medina comme yaa ngi biir Medina te loolu gannaaw yàlla ndimbal ak jàppalante journaliste yi la kon ñu ngi leen di sant di leen di gërëm di leen ñaanal yàlla seen organes yi nii yàlla na bokk ci yiñ gëna a tudd ci adina te yalla na leen yalla fay seen jëf te barke seen liggéey barke seen jabor jotal leen seen bugu bugu yeb ak seen ciakutef yalla am na ko mën na ko yàlla na ko def yaaram waa Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd yéenay liggéey fay ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV